donc euh, dama mën a wax lu weesu lu suma naataango wax mais dama naa si yokk astut euh, yoon bi ñun dañ si am gàcc gàcc bu rëy rëy rëy yoon boo xam ne dafa di yoon international ñun toujours dañuy reprocher ñun transporteur accident accident accident mais occasion la tey si seeni chaîne pour ma expliquer au moins accident yi lu ko war a faxas mooy yoon ne yoon yi na yaatu gis nañ yoon international boo xam ne dafa rallier Sénégal ak Guinée Bissau yoon bi ñu koy wàññi yoo xam ne yoon bi ay auto yu mag a fiy jaar waxuma waxi commune bi sax waxi région bi sax mais yoon international la ay gros porteur ñoo fiy jaar jël yoon bi ñu koy wàññi chaque vingt mètres yi wàññi ko kooku si ñun daal gàcc bu rëy a rëy a rëy lañ si am dañuy lancer appel un grand cri de cœur à l'autorité tey gouverneur moo fi nekkal euh, le président Faye son excellence euh, monsieur Faye kon ñun dañu naan gouverneur vraiment yoon bi na si bay xel te ñu koy contrôler mooy AGEROUTE nañu xool bu baax contrôle bu ñu fi di def parce que nit ñi nag dañuy réfléchir chaque 20 mètres ñu wàññi tali bi kooku dafa du loo xam ne du gën d'abord dina créer accident dañuy exposer population Ziguinchoroise ak sénégalais si yoon bii exposition moo fi am

faille mécanique bu amé catastrophe am parce que ay garde fou lañ jël wañé yoon bi té yoon bi da touti nañ yaatal yoon yi Sénégal warna dépasser fuñu fuñu wañé yoon. Mhm. Sénégal warna dépasser fuñu wañé yoon. au niveau international on est très bien connu on est très bien reconnu bo ñëwé Sénégal loy dëgg Sénégal Sénégal doo ko fekk Sénégal ça c'est une honte lolu gàcce la ñii man fumay dané moy euh yoon yoon bi duñ ko bay comme suma camarade. Maja Diop Sane waxee dinañ ko jusqu'à la dernière minute en tout cas yoon bi nañ ko bàyyi defal ñu yoon yu yaatu wutal ñu ay passerelles wutal ñu auto ay auto pont c'est pour vraiment la sécurisation de la population sénégalaise loolu mooy dëgg nañu defar nañu bay yoon bi mu yaatu te génnee lii sabotage moo fi am ak qui veut l'entendre yoon bi day day yaatu benn moment nga avancer vingt mètres bu tuuti yaatu Ben ñu n'avons pas besoin de ça ay kër Diamour lañ toj

Un boulevard 54 mètres du boulevard 54 mètres un boulevard 54 mètres boulevard 12 mètres la boulevard 12 mètres la te loolu pour Réou, Sénégal Sénégal toll na pour xam ne à dem si on war le Sénégal Sénégal nga Sénégal il fa fekk ay tali accident yi y a ne autorité bi accident a am yop. tali yaa tali nañ ko y a ko baliser ko on tali da nga koy baliser

état boo ne fi ñun mairie mairie nañu organiser parce que ñun amuñu espace mais mairie tous les camions fa en attendant ñu leen di par gros porteur man étant acteur du transport si charge ñun dañ ko musul duñ ko d'accord parce que ñu ñuy yeb non sénégalais suñu yaay lañ ñi suñu ñi suñu jabar ñi suñu des risques nous mettent leur vie en danger Lolo, vraiment nous du nous refaire. Pour ku nous bu Sénégal